gisaguma fii quand même euh, waxuma sax waxu président assemblée wala président conseil euh, constitutionnel wala beneen président boo xam ne diriger na fii élection mais président Macky Sall au moins nekk na fii ci état premier ministre nekk ministre de l'intérieur nekk président de la république 12 ans expérience bu mu am mun munuma gisuma ku ñu war a indi pour mu war a jiite loolu ku bokkul ak moom moom nag doyal na et bu doon manit man bu doon manit doyal na ndax lan lan ndax lan mu war a doyal. xam nga mandaam dafa jeex. donc c'est normal benn am dafa jeex. oui mais fi mu nekk nii moom nee na doyal na te mandaam jeexagul. ndax lan président am na am na ñu ko mere ci loolu. non ne bi muy wax ndax kilifa bu ñu ah. dénk war nga waxee noonu. non nit sax dana toog ci biir këram. Euh, jóg taxaw jàkkaarloog ñabeet bi mu ne leen dama doyaal ci kër gi. ndax loolu c'est grave. Euh, non xam nga lu tax mu grave. kilifa gu nekk sàmm li nit ñi di doxal xam nga tey Sénégal warul woon nekk ne président à partir de 2 juin bëggatuñ la wala waratooñu jiite loolu sénégalais war na ko ruusa wax parce que président Macky Sall jiite nañ 12 ans. mais mandat am am avril la yem donc nag mais su fekkente ne ci biir mandat bi dafa am ay lënt-lënt am ay ay kii balaa ngay xalaat keneen ak keneen. jokk cëram ak gëddam parce que nag jiite nañ mais aussi dafa am lu mu def ci biir euh, réew mi loo xam ne nit bu nekk teg na ji bëtam. est-ce que loolu lii du ko yàq lii. xew fan yii non dara bu yàqu na xawal président de la république kenn mënu ko yàqal ñun xam nañ qu'est-ce qui se passe ay nit ñoo xam ne dañoo bootu ci gannaaw ay nit yu fi nekk ñoo xam ne gumuñu Sénégal man li ma yàkkamti mooy président Macky Sall man Aliou Dembourou li ma yàkkamti mooy président Macky Sall dem ci jàmm ak salaam toog ci jàmm ak salaam seetaan réew mi ba ñu tekk ci yenn loxo yi. fan lañ koy jooyee parce que président Macky loo ko mënut a waxal. assuré na on a des risques. maanaam mën na quand même parce que parce que nag euh, am na yoo xam ne caaxaan la. yow boo gisee yenn candidature yi. Mhm. boo gisee yenn candidat yi. yab Sénégalais yi weesuwul nit boo xam ne warul mun a jiite quartier ñu ne ko da ngay bokk ci course bi di écarner lu mo lu toll ne jiite réew nu mu jafe. jiite quartier mais quand même mais mais démocratie. Mhm. démocratie aussi dañ koy teg ci dëgg. dañ koy teg ci yoon dañ koy teg ci lu yenu ndax nag réew mi waruñu ko fooye parce que réew moo xam ne réew président Senghor mais réew Abdou Diouf réew président Ablaye Wade réew président Macky Sall mais ay kilifa diine yoo xam ne même bu ñu jiitewul réew mi dañoo am. loolu reproché ñeneen ñi ñi ngay wax nii. ne waruñu ne ma ne la dafa am dafa am ñoo xam ne yàq moo leen tax a jóg xajamal moo leen tax a jóg. wut ñu leen di soutenir ndax pétrole bi ak gaz bi di accueillir ay moyens ak ay soutien yu jóge bitim réew ndax ñu xajamal suñu réew ndax ñu yàq suñu démocratie ndax ñu yàq suñuy sécurité ñu mun fi dugg def lu leen nekk si li nga xam ne ressources yoo xam ne ëllëg suñu doom yi ak suñu set yi ñoo ko war a jëriñoo. est-ce que looloo tax may condamné loolu. est-ce que waroo gis-gis ak sa chef sa leader. président Macky Sall instant jàmm la wootee nee na ma mais mais man li ma woote jàmm dama ne la jàmm laa woote mais dafa am loo xam ne xam nga ne ñuy wax ne bu président Macky Sall toog ñuy wax ne bu dialogue am ñuy wax ne nañu taal ñuy wax ne nañ def lii ñi ñooñu woote wuñ jàmm man kay li président woote dama ko cautionné mais dama ne la man bu doon man am na ay candidature am na ay nit seeni attitude ak li ñu wone ak seen ñàkk mal président de la république ak seen ñàkk warmal seen réew parce que nag réew président Macky Sall moomu ko moomul terre moomul BRT moomul forage yi moomul dara ci réew mi hmm. amul lenn lu muy taxañ duggal ci saagam ànd ci dem këram. pourtant nag da nga wax Sénégal yi ñoo ko moom.